loolu moom du du problème jarul kenn di ci jaaxle wala di ci tiit xam nga comme dañu lancer plateforme bi am cent cinquante deux mille candidatures am ci ñoo xam ne dañuy wax nañu am naa diplôme bi am naa diplôme bale bi ñu xoolee ci surtout ci diplôme professionnel yi yu bare dañuy wax ne am nañ diplôme bi am nañ diplôme bale ñun ñu ne bala ñuy jël liggéey bi di ko jébbal commission bi

donc loolu amul ben problème bu ñu paree dinañ jël lépp jébal ko kii maintenant suñ ko jébalee commission bi commission bi bu defee présélection dina leen wax ne leen que ñoom ñi nga xam ne présélectionné nañ leen nañu dem déposer seen dossier ci IFI mooy inspection de l'éducation et de la formation yi nekk ci département yi